kër yi lii mooy fagaru bi gën a wóor muy ñaari dose ñu war a def ci li boroom xam-xam yëpp wax nekk na loo xam ne mën na aar askan bi mën na aar nit ñi ci jàngoro boo xam ne vraiment xamaguñ ci lu bare mënaguñu ci lu bare dëggam nag liñ koy faje jàngoro bi amagul docteur yi nag ñu ngi xeex ci hôpitaux yi di sauver nit ñi sauver taas leen jox ngelaw li ñuy nooyee muy oxygène bi di def seen kem kattan ngir faj waaye nag balaa ngay faj ba fagaroo yàlla mën na la sutura bokk na ci li ñuy fagaroo ñàkk bi di vaccin anti mu doon ñàkk bu jafe am ndax àdduna yëpp ñoo ko soxlaandoo juróom-ñaari milliards doomu aadama moo tax réew moo dem même ñu koy defar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 toogaat présenté waat leen seen émission takkusaan ni ñu koy defee rek ayu ba si nekk altine lay doon ba alxamis jàpp 16h 17h ñu gërëmaat buur bi subhaanahu wa taala moom mi ñu yaat kattan ak tal ak fekkee ba ñu fekkee waat ayu bés bi noonu la ñuy jaaree nuy kilifa diine nuy kilifa aada yi nuy ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan takkusaan ak ni muy tëddee saa su ne xam ngeen ko xanaa ñu fàttaliwaat leen ko rek ci actualité la ñuy dox ak lépp lu nga xam ne dafay ñoŋal sunu dundin tey nag macha allah ñu nar a waxtaanee li nga xamante comme ni ñu koy waxee rek saa su ne dañuy waxtaanee ay ONG. waxtaanee ay mouvement waxtaanee ay association parce que ñoom tam ci askan wi la ñu bokk ba pare en plus que ñuy indi pàcc yu am solo ci li nga xam ne moom mooy euh, réew mi moo tax tey ñu daal di fiy dalal nag ONG juddu ñoom lañ fi daal di dalal euh, bu ñu nuyoo ba pare danañ daal di dugg nag ci seen liggéey ci seen ponk ak fi ñu tàmbalee ak yëpp dañ ko daal di waxtaanee nag ak euh, Bathie Mboup mu nekk directeur juddu ñu ngi lay nuyu bu baax Bathie am mbégte dalal la si plateau Takusaan. waaleykum salaam soxna ñu ngi lay nuyu. Je la ziar remercier ci invitation bi di également téléspectateurs et téléspectatrices sur RTS ñaan yàlla ñu tàmmalee waxtaan bi ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mhm. te mu nekk njëriñu askan wi yëpp mhm. euh, macha allah xam naa ci kanam tuuti rek ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy euh, ponk yi ñu daal di ci dalal tamit Omar Fall moom tamit mu nekk chef d'entreprise moom it nag bu bokk ci ONG euh, juddu am ci foo xam ne jaar na fa ak ñoom moom it ci kanam dinañ ci daal di yaatalal ci waxtaan wi Omar ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci plateau Takussan

nee naa leen mooy télé bu mag bi macha allah jëkk a juddu njëkk a baax yàqul dara nag mais da ngeen waxee ko tamit émission bu mag bi émission bi di émission phare bi nga askan wi ñoo ko bëggal seen bopp askan wi dañ fiy toog di fi wax tamit li nga xam li nga sunu dundin moo tax ñu daal di rek xool ONG bi nga xamante ne ñoom la ñu dalal tey ñu ngi ko créé depuis 1989 euh, dañ ko créé booba ak léegi xam ngeen ne ay at la ñoom ñi fi toog tey def naa ne bu fekkente tamit tu ay eh, nekk gane nañu àdd tamit ay tout tànk lañu woon defe naa ne macha allah bàcc tey mu jëw dox ba nekk li nga xam ne moom directeur bi loolu mbégte la bàcc ñu nuyuwaat la ci li nga xamante ne moom mooy ONG bi nga xamante mooy ONG juddu comme ni nga ko waxee ngeen def nag ay jéego yu am solo mu lu baree bari fesalu leen ko ci ndax da ngeen koy def ci sutura mais def ko ci tamit ci ndimbal def ko ci tamit ci jàppale li nga xam ne mooy askan bi mais nag buñ ci tolloo dama ne da ngeen di génn nag won askan bi fi nga xamante ne

dooree ci atum 1989. Mhm. benn sénégalais moo ko créé bu ñuy mhm. wax Jean-Marie Edmond da Silva. Mhm. ñu gën koo xamee ci Jeannot. Euh, ay jamono en 88 dafay àndoon ak ay xaritam Sénégal. ñëwoon vacances bi ñu ñëwee vacances ñu gis ni que pendant les heures de cours dafa amoon xale yu bëri yu nekk ci mbedd mi. bi ñu gisee loolu tubaab yi nag loolu xawoon leen jaaxal ay belge lañu woon. ñu ne jeune mais comment se fait-il que pendant les heures de cours xalé yi di nekk ci mbedd mi. Mhm. jamono jooju moy jamono système double flux bu amé ñi jang ci suba ñi jang ci ngone dum leen ko expliquer ñom ils étaient tellement choqués que biñu ñu Belgique ñu né ñoo il faudrait que ñu def dara pour yoy mhm. euh c'est vrai que jamono jooju peut-être public bi mënul woon. Mhm. phagocyter tous les élèves qui sont dans qui sont au Sénégal. donc pour décongestionner un peu juddu né won nak ñom kon janoo ne leen lenn lañ mëna def pour dimbali xalé yi ñu yóbbu leen ñu jàngi ci école yu baax parce que ay xale la ñoo xam ne seen wajur seen loxo jotu seen ginnaaw. Mhm. pour que au moins ñu mën leen assurer seen avenir. Mhm. donc ci loolu xel bu rafet boobu jeune amoon. moo tax ñu créé juddu. Mhm. depuis 89 di jël xale yi en charge di leen euh, fayal loolu peut-être ci kanam xëy na. Euh, mun nañ ci dellu soit bu la neexee bu la neexee tam mun naa ko. développer waaw mun nga ko développer waaw. donc euh, li nga xam ne nii moom la juddu di def nag. bi ñu créé associé ONG bi.

de Pikine et de Dakar. Mm-hmm. bu ñu amee bac également ñu accompagner leen ñu def formation professionnel mm-hmm. d'au moins de trois ans pour ñu am seen bachelor bu ñu amee seen bachelor nag ñu accompagner leen euh, nan la ñuy demee defaree CV nan la ñuy demee euh, ci ay entretien en entreprise. Mm-hmm. ba nga xam ne ni wóor na ni kii tàggat bi mat na ñu daal di koy yeewi mu demal boppam nag. donc il y' a des centaines et des centaines de jeunes qui ont bénéficié de nañ ONG -hmm. je suis directeur depuis plus de 13 ans. Mhm. je suis en charge de ma je suma bac dem mm-hmm. université def suma économie ba fa master en économie rurale mm-hmm. et puis je continue également di di di jema def li nga ni mom la fi mm-hmm. ñu jema xol ñun nan lañu def ba niveau donc ci kaw aussi au delà de aide scolaire bi également dañuy intervenir ci domaine santé ndax bépp xale boo xam ne nii feebar nga mhm. ONG bi moo lay jël en charge quel que soit le coût de l'intervention mhm. ñun ñooy fay ñun ñooy euh, jënd médicaments yi di la traité ba yàlla mayaat la jàmm mhm. ci kaw loolu aussi tamit am na aide alimentaire ponctuelle yoo xam ne ni dañ koy def yooyu yëpp dañ koy jox famille yi chaque weer saaku ceeb diwlin ak yi demee noonu mais lépp ci sutura boo gisee quatre-vingt-neuf ba léegi du ñuy gis ci télé yi du ñuy gis c'est parce dangay def te yàlla rek moo tax jarul ngay nekk di fësal di xumbala ki demee noonu mm-hmm. donc loolu moom moo tax mais du càgginu dañuy làqatu wala yi demee noonu mais nag euh, comme que jamono dafay dox mm-hmm. quatre vingt neuf ak deux mille vingt deux mm-hmm. yaakaar naa ay ati ati at dox na ci les choses changent et puis am na foo xam ne nii foofu lañ nar a jëm incha allah fii ci kanam tuuti fii ak ay at wala fii ay weer donc ñu ne nag kon jot na ñu génn wax ak sénégalais yi nga xam ni peut-être ñoom ñoo ngi fii mm-hmm. yàlla am lu mu leen dénk am lu mu leen sutural pour que ñoom aussi ñu mën a ñëw jàpp ci liggéey bi nga xam ne nii moom la ñuy def mm-hmm. muy dimbali xale yi pour jéem a lutter contre l'analphabétisme mm-hmm. lutter également contre la pauvreté mais également contre la délinquance ndax xale yi bu fekkente ne ci famille yu démunis lañ nekk bu ñu amul encadrement amuñu leen di jàppale rek boo moytuwulee mun nañ jël yoon boo xam ne nii du gënal seen i waajur kon nag ñun ñu ngi lutter

mu war a xam ni que am na loo xam ne nii mi ngi Pikine mhm. muy première dame également Marième Faye Sall mi nga mhm. xam ne ni jëm nañ ko adressé adressé ay correspondance mhm. mais xëy na jotu ko ak suñuy ministère de tutelle pour que au moins sénégalais yi aussi jàpp ci ndax lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def ci biir juddu. Mm. suñu partenaire Belgique ak Luxembourg ñoo koy financé. ñoo koy financé kon nag que jot na tey pour ñu xamal ko askan wi. Mm-hmm. bu ko defee au moins képp koo xam ne ni Sénégalais nga. Mm-hmm. te bëgg ci jàpp nga ñëw incha allah dimbali ñu ci projet boobu nga xam ne ci lañ nekk. dëgg la parce que Sénégal nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi ay bay defal yàlla yoo xamante ne euh, dañuy génnee loo xamante ne dañ koy jox pour askan wi yenn saa itam dañ dul xam fan la ñuy jaar pour joxe ko. macha allah bari nañu baax lool bari na ci ñoo xamante ne dañuy def te yàlla rek tax duñu bëgg sax euh, nit ñi xam ko waaye nag comme niñ ko waxee ay ndaw lañu ñoo xam ne ay jirim la ñuy doon wala ay baayo wala ay nit ñoo xamante ne ñu ngi ci àdduna bi mais nag euh, loxo du jot ginnaaw ñoom ci yooyu la taxaw kon ba tey rek suñ ci amee ndimbal dafay gën rek neex ndax booba ak léegi ay ati at ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo euh, ba nga xamante ne kon nag tey ji ñoo toog ci RTS waxtaane ko te ñu am ci yaakaar nag bu baax a baax que ne doon loo xamante ne dina am ay jéego euh, Omar euh, defe naa dégg nga li nga xam ne directeur euh, wax na ko balaa ñuy jël élément macha allah yow nga bokk ci li nga xam ne ONG bi te nga jaar fa am noo xamante ne noonu lañ ko jëflanteeg yow ba ñu egsi fii yow lan nga ñu ciy wax. waaw di rafetlu kàddu monsieur Mboub Bàcc mhm. dégg naa bu baax li mu wax te li mu wax aussi yaakaar naa ne xel yanu na ko. juddu mu ngi nekk benn ONG boo xam te ne depuis quatre-vingt-neuf man boobu sax juddooguma. dëgg la waaw peut-être sama mag sax moom la ñuy wax. moom kay moom laa ma ne boobu juddoo fekk ay tuut tànk. waaw voilà dëgg la donc <laughs> mm. boobaak juddu di dox ay jéego yu am solo. Mm. ci biir Pikine ci biir banlieue bi yëpp sax laay wax. ndax du ay élèves Pikine kase ñoo fa nekk am ñoo xam te ne sax dëkkuñu Pikine. Mm-hmm. mais dañuy bénéficier wu ci aide juddu. Mm. ba man mii di wax ak yow ci ci loolu laa bénéficier wu nga xam te damay dëggal li wax que ne dañuy jël ay xale yoo xam te ne c'est des orphelins ay jirim lañ mhm. wala ñi nga xam ne seen papa ak seen yaay seen doole jotul seen ginnaaw mhm. ñooñu lay jàppale man ma bokk ci ñi nga xamante ne tey mën naa taxaw fu ma neex nag siggi mhm. ndax du ma ko def ak benn honte pour wax que ne j'ai été aidé par juddu parce que sama papa ak sama yaay dañoo teel a génn àdduna aw woon ci ku ma wéeru juddu moo ma tàllal loxo au moment où ñëpp xam nañ ne banlieue bi chaque tente mm. vraiment à sa manière mm. de sortir de la tête hors de juddu tàllal ma loxo ci moment yooyu noonu nga xam ne ne mm. mënoon naa nekk lu bëri ci àdduna loo xam te ne dama koy regretter un jour juddu tàllal ma loxo fekk maa ngi nekk euh, en primaire en classe de CM2 mm-hmm. juddu ci la ma jëlee depuis lors ñu assuré suma lépp franchement yoo xam te ne scolaire la ñoo koy gérer mm-hmm. loo xam te ne sax franchement du scolaire comme ni nga ko waxee ci côté santé mm. à chaque fois buñ ñu fièvre suñu andé ordonnance bi dañ koy jël lépp en compte mm. dal di koy jël jox ñu garab yi ñu soxla mm. ak lépp lo xamante ne dañ ko soxla pour suñu wérgu yaram mm-hmm. donc juddu nek na lo xamante ne léegi nekkatul lu ñuy présenter Pikine mm-hmm. wala ci banlieue peut-être li ñu ñëw ci télé bi tay dañ koy présenter pour que ñu xam ko au niveau national wala ñu gën ko xam mm-hmm. ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi koy dégg wa ñu gën ko xam comme niko ko bàcc waxee am ñoo xam ñu dégg juddu mais yaakaaruñ ne ONG wala boo xamante ne tey gisuñu ci ñu bëri dugal ci seen loxo. Mm-hmm. te tey ñu bëri war ci mën dugal seen loxo ndax Sénégal ñëpp xam nañ ne lu amul pëccëxoo rek ñu bëri duñ ci bokk. te juddu day def loo xamante ne da koy def ci ci calme. ci sérénité lu kenn yëgul ci sutura. Mm-hmm. moo tax nag lu lu bëri nit yëg. Mm-hmm. mais en fait loolu laa amoon ci ay kàddu yoo xam te dama ko ciy dolli mm-hmm. ndax judd dimbali na man ak samay morom yu bari yoo xam te ne tey waroon ñu fekk ci yeneen situation mm-hmm. te judd moo ñu ba tey bu ñu rëccee mm-hmm. ñu koy sante judd bu baax ak tubaab yi macha allah am na solo euh, bàcc euh, dama bëggoon dem mais foog ma dellu si waat ci yow balaa may <laughs> dem jëli élément bi euh, comme ni nga xamante ne ONG bi noonu lay doxee naka ngeen di fexe ba xàmmee nit ñi nga xamante ne seen loxo du jot seen ginnaaw ak ñi nga xam ne dañoo nekk ay baayoo nekk ay jirim ndax dafay am ay demande yoo xamante ne moom lañ leen di def naka ngeen di def ba mën a xam loolu pour organiser ko. waaw euh, donc dafa am ay préalable. Mhm. c'est vrai que via système de bouche à oreille maintenant ñu bëree bëri xam nañ juddu. xam nañ ko waaw. donc euh, naka la ñuy def ba recruter xale yi c'est mhm. qu'en fait il faut que parent bi ñëw def déjà une demande mhm. manuscrite. vous m'avez adressé mhm. à l'équipe de judo mhm. demande c'est au mois de novembre de chaque année euh, parce que dafa am après une enquêtes sociales nous def donc période bi, may wax ak yow nii commencé nañ pour nous ñu pour devenir, Inch'Allah. Mhm donc euh, vous imaginez un peu banlieue bi demande yi moom jour bu ñu ibee li am na ñoo xam sax ndaysan mhm. dañ leen ni masoo bu ñëwee dañ leen di ndax da mhm. gis ño xam dañ ci fanaan ñi ñëw fajar mhm. donc bu ñëwee ba gis leen bu ñu suñu siège bi suñu yaram fay daw donc dañuy bëri donc bu défé demande yi après dinañ def ay enquête sociale enquête sociale yi ci famille lañuy dem nak même bu fekkente ne on a 100 demandes wala 150 cinquante demandes on fera 100 wala 150 familles familles y a tout un tas de questionnaires yo xamni dañ koy laaj euh, parents bi. Mm-hmm. ak alentour yi également. euh bu loolu weesoo dinañ def ben test ak xalé bi. Mm-hmm. bobu suñu bureau lañ koy défé xalé bi parents bi du yëg ndax amna question yo xamné luñu lu bi doon neub xalé bi dinañu ko wax dina ko wax dëgg donc pour gën ñoo léral mm-hmm. mais ci kaw lolou également du ñam foofu. dinañu xool aux alentours du du quartier. ndax Pikine ñun ñëpp xamante. Mhm. ndax kooku en réalité lam ñuy wax dëgg la am du dëgg. bu ko defee ci kaw loolu la ñuy jéem a xool pour sukkandiku nag. Mhm. daal di def sélection priorité nag et donnée aux orphelins. ñi nga xam ne ni peut-être seen i wàjju dunduñu dunduñu te ñu nekk ak seen benn maam wala seen tante boo xam ne loxoom jotul ginnaawam kooku ñooñu la ñuy prioriser mhm. au la de ça aussi mooy xale yi nga xam ne dañ leen abandonné déjà ñoom sax ñooy njëkk orphelin yi mhm. ak i tamit xale yi nga xam ne seen wàjjur seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ñu daal di ciy topp mais toujours est-il que sélection bu bu rigoureuse la Mhm. donc euh, la procédure bi du loo xam ne ni dafa yomb ñi am na ñoo xam ne dinañ demander une année deux ans trois ans am na koo xam depuis dix ans mi ngi def demande daaw jéeg la door a jël doomam kon xam nga ni mbir la moo xam ne ñiy demander dañuy bëri tellement que mhm. mais on fait de sorte euh, que dañuy satisfaire le maximum de de de personnes. parce que saytu bi moo koy indi ak jangat bi pour xol ni ko gëna yello yelloo. ngeen defal leen ko absolument mhm. absolument ndax il faut ñu dem ci nak ci famille yi. Mhm. Sénégal lañ nek lélé léeg am na ñoo xamné ay ay kat lañ. ñen bal ma ci cadeau yi. lélé nit ñëw na la parce que arrivé une fois. On <laughs> damay raconter ben anecdote euh. dafa am ben maire bu mus a ñëw. Mhm. def ci demande maire bi muy def ci demande man je l'ai reconnu. bi ñu demee di def enquête ci kër ga. borom këram génn nañu lan la ñu expliqué ko ne ko sam soxna si moo ñëw defal demande sa sët mm. mu ne non buñ ko expliqué euh, juddu li muy def mu ne wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant mais nag ndimbal gi ngeen def am na ñeneen ñoo xam ñoo ko gën a yelloo ko sama sët bi mm-hmm. ndax sama sët bi man mën naa ko fayal yaayam mi ngi dund mën na ko fayal kon jël leen ko ngeen jox ko keneen donc loolu mooy wane ni que mm-hmm. enquête sociale yi ñuy def yi daf ñuy mm-hmm. ci am solo ndax ça ñu xam ñan ñoo ko yelloo ñan ñoo ko soxla ñu mën ko jox euh, euh, couche euh, enfin cible boobu. Mhm. voilà parce que am na ci solo comme ko waxee rek yenn saa yi riirandoo yi day yenn saa yi tamit dafay ñàkk mais defe naa comme ni ngeen di wax ni li ngeen ci jógee am ñoo xam ne ngeen ci jàppale te dóorkat yooyu ñuy wax ñu génne ci seen loxo mbir mi dina gën a yomb ci seen liggéey parce que nekkul liggéey bu yomb de. Mm. ndax Sénégal ñu déggee fenn ndimbal am na rek am na ci ñoo xam ne nag moom dañ ko yeyoo dañ koy dem wuti ñooñu jar nañ ko mais am na ci ñoo xamante moom dañuy bëgg lu yomb rek moom moo leen ci euh, dugal Omar yow naka nga def ba ba ba am accès ci juddu parce que dégg nga euh, directeur nu mu ko waxee nee na dafa am demande yoo xam ne moom ngay def am noo koy toppee euh, ba nga xam te yow instant boobu noonu yaa ngi nekk classe CM2 loolu nga ñoom bi nga xamante ne ñu ngi lay jël naka nga def ñoom ñoo ñëw ci yow wala yow yaa fexe pour dem jege leen. waa di kontaan trop ci tontu ci question boobu noonu. ndaxte mën naa wax ne tey su ma demee ba am accès ci ONG juddu mhm. sama benn cousine nag dëgg yàlla da cee joué role bu am importance mhm. sama benn cousine bu ñuy wax Dior Dieng yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ma njëkk a wax ne ma mais frère sama doom sax ma doon wooye ne ma mais booy yow gis naa benn ONG fii di dimbali xale yi nga xam te ne seen i parents dañoo décédé di leen fayal dama gis ne da nga am talent ci jàng bi mhm. macha allah ndimbal boobu boo ko amoon dina gën a yombal say mbir bon comme jeune rek affaire jeune maanaam waaye taluma li nga wax damay fubali. Mhm. mais jour boobu laa gis nit ko déterminé parce que jaral na ma fekk ci bool ma yëkkati. Mhm. na ma yow est-ce que nit nga parce que sa avenir laa lay wax ngay tal lekk. ma ne ko mais damay añ mu ne ma añ amul jugal ñu dem ma jug ànd moom naaj bi tàng jër c'était à vers treize heures. Mhm. ma ànd moom ñu dem ba côté technopole bi ndax fa la chaise bi njëkkoon nekk. ñu dem fa. ñu expliqué ñu ne léegi fii dañoo tuxu ñu ngi gazel. Mhm. ma ànd ak moom ba ba gazel. ci yoon bi sax maa ngi koy tooñ di ko wax ne ko mais yow naaj bi tàng na yërëmoo sa bopp. Mhm. munoo man lu ma lu ma jaral daal mais man naa teg foo xam te ne di nga casé wu. Mhm. ñu ànd foofu moom mu def demande bi ba mu defee demande bi daal di ñëw toog ci kër gi. quelque temps ñu war a def test yi def enquête. ci noonu. ma toog ba benn jour rek daanaka inscrire woon naa sax école pour ba ma amee entrée en sixième. waaw benn école bu nekk euh, Pikine. waaw ba pare ci lañ ko wooyee moom téléphone. ne ko sa élément bi nga fi andi woon Omar Fall juddu jël na ko ba ma ko waxee man gaw ma ko woon sax nag mu ne ma léegi da nga jug lu mu gën a gaawee ñu dem fa. Hmm. ci lañ demee foofu ma fekk fa suma grand bàcc mbuub ak ñoom anesthésie à l'époque ñoo fa nekkoon. Mhm. ñu accueillir ma franchement avec les bras très ouverts. Mhm. ma nekk ñoom ñu xamal ma tamit juddu ndax dafa am ay normes yu muy doxee. Mhm. juddu dafa am ay règlement intérieur ñu wax ma règlement intérieur juddu li juddu di bañ xam te ne bi juddu jël dafa am ay heures yoo xam dafa a nekk. parce que heures yooyu da ngay jàng. au delà de heure yi ngay jàng école boo a juddu da am ñeneen ñoo xam dañu jël ay répétiteurs. dañ fii da nga di jàng. bu heure yooyu jàllee aussi. bëgguñu gis élève juddu muy taxawaal ci mbedd bi hmm. parce que mënuñu la fekk ci mbedd bi pour dimbali la ba pare la fekkaat ci mbedd bi gannaaw bañ la dimbalee donc am na ay règlement xam te nga koy respecté ma topp ci règlement yooyu am solo parce que dafay am solo bàcc ñu xam yenn saa mbir yi muy tëddee parce que olof Njaay ko wax nee na tungu ne du teew ñuy nataal parce que nag dafa am yoo xamante ne bu ko defee dañ koy daal di fësal Euh, ndax gis nga li ñuy def nii macha allah ñu ngi gërëmaat président Macky Sall bu baax a baax ñu koy nuyuwaat euh, di ko sargal ci liggéey bu rafet bi ak euh, taxawaayam parce que dafa doon nit ki nga xamante ne ndaw ñi dañ koo jaral lu ne dama gis fu mu dem fu mu def discours rek ndaw ñi daf leen fay bàyyi xel bu baax a baax moo tax yu mel nii bu amee bu koy xam xam naa ne dina ci am jéego yu nga xamante ne da koy dolli rek ci li muy def ndax moom mi ci yoon bi moom macha allah mi ci yoon bi xëyu ndaw yi ñor na ko jàng ndaw ñu yor nañ ko parce que gis nga tout récemment li nga xamante ne mooy jàngalekat yi euh, jéego yi nga xamante ne def nañ ko fi bi mu fi ñëwee ak léegi li mu def ci njàng ak njàngale mi kenn dootu ko naatamle kooku moom dañuy rek euh, teg ci baaraam xam ne ne macha allah def na ci jéego yu am solo kon yii tamit bu ñu koy def tamit ba tey rek dem ay jeunes la ñu may tamit dañuy gën a toppaat rek li nga xam ne mooy que euh, président pour que gën a mën a rek def ci seen gox loo xamante ne day am solo léegi nag balaa may dellu siwaat euh, ci invité yi damay dem régi jëli ji élément bi dellu siwaat ci plateau bi bu ko defee ñu daal di yéegale waxtaan bi dañ fi nekk euh, yàgg na ndax man sama doom bi mu nekkee sëy ba léegi mi ngi judd yaakaar naa ça fait des années ba déwén def bac ñu nekk nag ci ONG bi nag euh, yàgg na ak euh, bàcc mbuub di liggéey mu nekk nag liggéey boo xamante ne liggéey bu métti la parce que yor ay ay xale dafa métti te tamit parents yi nekk Belgique nga xamante ne nii démarches yeeg yooyu yëpp bàcc nekk ci ak ak équipe am di nekk ak Jeannette ak may Mayna am na ñeneen ñu fi nekkoon ñun ñu décider euh, def benn bureau parents yi def bureau bi pour jàppale ko pour pour liggéeyam gën a gën a gën a facile parce que nag ni ñu ci xool mooy nii dañu nekk nekk ci askan bii li ñu taxoon li ñu tax njëkk njëkk njëkk a euh, pour ñu jug mooy euh, judd dafa soxla woon terrain bàcc wër fu ne dugg ci maire yi wax lu ne man ragaluma la may wax parce que loolu dafa métti woon ndax nag location bi dafa métti amuñu terrain boobu boobu kenn aménagé wul fee technopole bi ba tey technopole bi tay saturé ba légui nii amagul c'est difficile kenn fekk suñu ko ci ñun parents yi ñu volontaire jàppale ko ci liggéeyam. Babacar sen di maître artisan di président artisan yi nekk fii au niveau de Pikine nekk président parents d'élèves fii jull di liggéey ak ñun ci wàllu xale yi. ñu wooñu di ñu joxati ay ndimbal yoo xam ni depuis bi nga xamee ni mbas mi ñëw na ci dëkk bi ba tey biñ ko yégee ñi ngi jàppale père de famille ci seen kër jiitu loolu ñoo leen musa yor di leen jàppaleel seen doom di leen fayal seenum njàng ci école yi ñu nekk jëlaat ay professeur ci biir école bi fii ci biir ONG bi ñu leen fii jàngal ay cours de renforcement di leen dimbali ci wàllu médical di leen di leen conseiller ci surtout la ligne maa ngi nuyu ñëpp du nuyu bàcc du nuyu zenet du nuyu may maar du ñuy ñëpp yàlla may ñu wér gudd fan wax dëgg yàlla bàcc taxawu na suñu njaboot bi surtout ma man mi ba mu mettee moo ma jàppale ak zenet maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool yàlla may ko wér gudd fan lépp lum sombi soom bi si xale yàlla àggali ko bisimilahi rahmaani rahim waa di ñaano tamit suñu tubaab yi nekk foofu jàppale suñu njaboot parce que koo xam ni xamoo ko mu jëlal sa doom di ko fayal ba koroog sa doom di am li mu bëgg di leen yónnee ay jëre di leen yónnee xaalis di leen yónnee ceeb kooku amuñu ay fayal te am nañu ay mbokk yu ko mën a def te kenn defu ko. macha allah mu doon élément bu am solo bàcc lan ngay wax ci élément bi.

ay jéego sax lay wax. Mhm. Mhm. pour que euh, maire bi may ñu benn parcelle de terrain ñu mënoon fa samp suñu siège mën ko tabax ndax juddu sous mhm. location la nekk depuis quatre-vingt-neuf ba léegi. loolu antuwul man bi ma ñëwee yàlla tabu ma fa ma nekk fa directeur jëm naa dox nag dëgg yàlla depuis jamonoy. daawoon ñaa njaay xam nga mm. boobu léegi yàgg na yàgg na pour ñu may ñu terrain mais malheureusement malheureusement dañu doon ne terrain mun nañ leen ko jox mais à condition de lii waaw alors que nag une ONG ñun duñ ko politiquer mm-hmm. donc loolu moo nekkoon suñu divergence ak ak ñoom mm-hmm. ba tax ni loolu jox ñu woon terrain ba maire yi mujjee jàll yëpp ku ci nekk daal ku ñëw rek dinañ dem présenter la projet wax la li nga xam ne nii moom moo fi nekk pour mm-hmm. au moins ñu mën ko mën a taxawal suñu mbir yàlla dogalu ko ba daaw suñu partenaires yi décidé nag comme que euh, nguur gi wala ñi fi nekk ci dëkk bi joxuñu ñu terrain nañ mm. jënd suñu bopp. donc ci la yàlla dimbalee ñu am benn kër bu ñu doon jaay foofu Pikine. Mm-hmm. ñu jënd ko raser ko. Mm-hmm. samedi passé d' ailleurs lañ doon def pose première pierre bi. Mm-hmm. incha allah travaux yi commencé na depuis lundi passé. et xam naa ni fii décembre bu neexee yàlla ci la ñuy euh, réceptionner le batiment loolu entrepreneur bi wax. donc di wax nek que loolu boo gisee ñu def effort yooyu yëpp c'est pour assurer la pérennité des actions du dou dans mhm. les années à venir mhm. ñun buñ fi nekatul fi ak 100 ans dina am ño xamni dañ fi nek soxla toujours ndimbal ñu bàyyi leen fi ben héritage bo xamni ñom ni koy continuer mhm. comme le feu Jeannot da Silva nu mu ñu bàyyilee héritage créé ba out ay partenaires yo xamni ñom ñoy ñooy di financer le projet ñu fayal suñu jang ñun on se devait d'avoir le devoir de bàyyi fi leen dem nous avons aussi euh, vraiment euh, en premier lieu le président de la République du Sénégal mm-hmm. Nous euh, avons le projet en tant que tel Le mm-hmm. projet les perspectives mm-hmm. donc mais bëggoon nañ incha allah bu projet bi paree ba ñuy am suñu bâtiment mhm. location wàcc yu bëri wàcc ñu am capacité d'accueil bu gën a mën a rëy mhm. dinañ mën a jël au moins cinq cent wala lu ëpp téeméeri euh, cinq cent xale yoo xam ni mhm. ñu ngi dëkk Pikine mais loolu nag il va falloir que suñu euh, njiit yi ak suñu responsable yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gox bi ak les bonnes volontés mën na cee jàpp donc je lance un appel solennel au président de la République du Sénégal xam nañ ni que euh, mi ngi accordé beaucoup d'importance à l'éducation, mhm. mais aussi ñun puisque ay acteurs la nous xam nous nii dañu par rapport à l'État, état ndax li juddu di def mhm. collectivité locale moko waron def avec l'acte 3 de la décentralisation wala l'État du Sénégal mhm. mais nak bu fekkente ne dañ koy def bo ba légui di dem ci ñom te gisunu ñu ñuy gungé wala gisuñu ñu ñuy dolel loolu daf ñuy xaw a metti mm. euh, te xam naa ni peut-être président daf ko jotagul rek mm. mais bu ko jotee normalement war nañu mën a gisee toog waxtaan ñu présenter ko le projet ndax mooy suñu kilifa fi nag ci ci mm. Sénégal mm-hmm. donc booy def un projet de plus de 100 millions de francs CFA mm-hmm. nar ko def pour les Sénégalais pour les Pikinois je pense que njiitu réew mi yoon la ñu gisee ak moom toog waxtaan échanger ci xool naka la ñuy def ba ñoom aussi ñu mën ñu accompagner ci wàllu woowu euh, la première dame également via sa fondation nous lui avons adressé euh, ay correspondance pour mhm. vraiment gis nañ jappalé gi muy jàppale néew gi doole gi mhm. euh, ñoom aussi ñu mënon ci japp donc euh, mais jusqu'à présent amuñu retour mhm. donc c'est le lieu pour ñun aussi ñu lancer ko un appel vraiment bu fekkente ne mu ñi dégg ñu xol naka lañu def ba sénégalais les purs sénégalais mëna japp ci projet bi c'est un projet bo xamné ni ñin ñi ñoko mom moom askan wi ñoo ko gi doole gi ñoo ko ak bép sénégalais bo xamné ne nekk nga fi Euh, bëgg dimbali te xamuloo fooy jaar juddu mu ngi fii donc te ñun suñu lépp ci transparence lañ ko teg amul benn xaar ma yàlla wala ay jël ñu la neex amul doo gis mukk juddu benn xale boo xam ne sant na mbubb wala muy sama jarbaat wala sama rak amul moo tax saay suñuy dox dañuy dox ak la tête haute. Mm. ndax kenn du ne ñi dañuy parparloo ci xale ñuy jël wala ñu duñu duñu leen dul jël. Mm. Eh, dama dégg sa biir kàddu nga naan Pikine Pikine rek ndax ñu ngeen di jël Pikine kese la ñuy yem. waa ci département de Pikine lañu la ñuy yem mm-hmm. la ñu yemagum. bien que sunu bëgg-bëgg moo doon def ba nu élargir ko un peu. mu gën partout au Sénégal. Mm-hmm. mais bu dee Pikine gi ñuy nekk déjà avec euh, le nombre d'habitants qu'il yàlla ba là ñu am déjà ñun ay jafe-jafe pour mën a phagocyter ñooñu ñëpp ñi nga xam ne dañu soxla. Mm-hmm. donc moo tax ñu ne nañu commencé gum foofu waaye mm-hmm. nañu nekk ndig gum foofu. bu yàlla defee ba doole ji gën a bëri nag incha allah ñu mën ko étendre un peu partout au Sénégal mais euh, sëgam fii lañ nekkagum am fa terrain.

ñu mën a suturlawu en plus xeexaale dañ doon wax voilà xeexaale woon covid bi mhm. ndax dañ leen doon wax nañ toog seen kër yi mhm. xam nga nit buy toog këram te mu nekk góorgóorlu mhm. bu génnul jaay fonde wala mu jaay cere du mën a dund kooku boo ko toogleewoo këram te joxoo ko lu mu suturlawoo loolu dafay metti moom la ñuy wax bu nga nekkee ci réew mi ku ci nekk ci pàcc bi nga nekkee dafa am yëngu-yëngu boo xamante ne yow war nga ko cee mën a def absolument comme koy waxee rek xalangu dajul su nguur gi defee côté bi ONG yi def fi yi def fi association def fi. Mhm. ku nekk defal te def ko nag te yàlla rek tax. day am solo parce que gis nañu que ni euh, Covid bi moom nee naa leen ba tey mi ngi ci réew mi. Mm. xanaa dafa wàññeeku te ñu ñaan yàlla mu gën a dañ gis nañu que ne ñaari at yi daf fi tar li mu fi def yëpp xam ne mais gis nañ kilifa diine yi dugal ci seen loxo. kilifa aada yi tamit def ci ay liggéey yu mucc ayib kon yéen tamit su ngeen ci defee loolu tam dañ leen di wax ngàcce parce que yéen tam nekk ngeen ak ay ñoo xamante ne xam ngeen ne ñii dañoo néew doole dañ leen war jàppale lo tam dañ koy rafetlu bu bu baax a baax Omar loo si bëgg doole si si si loolu. waaw li may dolli ci li bàcc wax rek. waaw mooy ci côté surtout bi mu wax bi muy lancé appel. Mhm. que ne gis nañ ne tey lancé nañ appel son excellence monsieur le président de la république. Mhm. Macky Sall di ko tamit lancé euh, soxnaam su baax si. la mhm. première dame. Marième Faye ci juddu soxla na ndimbal mhm. ndimbal bi ñuy wax nag mooy comme ni ko baa ci waxee nëbbuñu li ñuy def mhm. jot nañ am suñu terrain def nañ suñu première pose pierre mhm. li ci des mooy tabax ko ni ko waxee xeebuñu ci dërëmu kenn simaawu kenn wala suufu kenn wala te it xalaatu kenn waaye li may gën a dolli foofu rek mooy comme tey ñëw nañ ci télé waxee ko fi ku ne xam ne ne loo loo ñëw wax ci télé ñun rek buñ génnee fii yow dina am ñu la woo ñu bëri pour ñaan la ndimbal kon dina am ñu bëri loo xam dañoo war a dooleeku si ñun kon am na loo xam surprise lay nekk ci juddu ci ay nit yi war a ñëwaat di def ay demande laaj na tamit ndimbal bi gën a yokk ci ñun loolu laa doon am lu may dool ci ay kàddoom di rafetlu kàddu yëpp mhm. euh, Bathie juddu fu mu jógee ak bu fu mu toll macha allah yal na jéego yi gën a yokk mais fan ngeen xalaat jëmaat ak juddu waaw ñu xalaat jëm mooy euh, gën a yokk rek jamono ji metti na mhm. jafe na ci parent yi ci xale yi mhm. euh, tey ñu ngi toll ci téeméeri xale yi ñuy jël mhm. bu ñu sañoon déwén du ma ne dañuy def dama ne bu ñu sañoon dinañ jël ñaar téeméer déwén jéeg ñetti téeméer bu ñu demee nag ba capacité peut-être xëy na mu toll fenn fi ah ñu gën xalaat leneen lu gën a yaatu maanaam euh, créer loo xam ne ni dina mën a jël mille élèves mille cinq cent élèves genre du genre ben école communautaire bo xamné ni xeyna parce hmm. que c'est juste des idées comme ça. comme que dans les perspectives. xalaat gis-gis donc lolu dina mëna tax. ñu mëna jël beaucoup plus d'enfants, enfants. Hmm. mën leen dimbali mën leen encadrer mën leen teg ci yoon. ba nga hmm. xam ni ñom dinañ génn ci délinquance ci pauvreté bi. mën a euh, ci yoon. donc dama fàtte woon sànq préciser que ni. Euh, bi sama partenaire ñëw fi au mois de mars on avait rencontré le maire de la ville de Pikine monsieur Abdoulaye Thimbo. que je remercie d'ailleurs au passage parce que biñ rencontré il a été très sensible à, la cause de judo mhm. il a décidé qu'à partir de l'année prochaine mhm. tout élève de judo qui obtiendra son bac maire de la ville de ko une bourse de trois ans pour mener des formations via la DAS mhm. euh, bi nga madame Penn Moko ko nous également madame Pen parce que rencontré nañ comme confirmé confirmer que le maire jox ko euh, euh, à partir de déwén élèves élève judo bu bac bu fekkente ne école yi ñu nekk en partenariat xale bi bëgg na fa jàngee ñu yóbbuleen foofu ñu def seen mm. formation donc kooku benn acte la boo xam déjà c'est quelque chose mhm. donc moo tax ñu ci woo yeneen maire yeneen communes yëpp mhm. maire Pikine Ouest également monsieur Cheikh Diop aussi mi ngi ñuy mhm. vraiment mi ngi ñuy euh, encadré ci côté institution lépp loo xam ne dañ ko soxla et tamit je sais que le projet lui tient à cœur donc euh, ñuy wax ne que rek ibbi nañ suñu loxo vraiment ñëpp bépp doom pikinois ak bépp doom sénégalais boo xam ni éducation ñor na la pour ñu mën ñëw jàpp ci suñu projet bi nga xam ne nii ci lañ nekk mais perspective yi moom ñi ngi ci donc euh, incha allah xam na bu ñu fi ñëwaatee déwén mhm. dinañ la wax fi nga xam ne ni fa lañ foofu lañ yegg si mhm. ak fi nga xam ne peut-être foofu lañ ko bëgg a jëmale ci at yi di ñëw incha mhm. xam naa bu siège bi pare sax di ngeen dellu si waat defaat beneen communication ñu gën a jàllale li nga xam ne mooy mbir mi yenn saa dama koy wax dama naa liggéey yi day am solo des fois da ngeen nëbbatu nag ba ba ba ba judd ndax nee nañu nag euh, euh, jaan bu bëggee mat <laughs> li mu doon day nëbbatu ci paxam bu ngeen nëbbatoo nag ba egg fi ngeen egg nag macha bu ngeen génnee Euh, ñu xam ne ñii yor nañu dara pour ñu dollil leen dara du du jafe comme ni nga ko waxee. Mm. waaye defe naa tamit yéen a ngi xalaat que ni euh, chaise boobu ngeen def noonu ci li nga xam ne mooy département de Pikine ngeen gën ko yaatal ci li nga xamante ne euh, mooy yeneen département yi ak yeneen communes yi xanaa. bien sûr gis nga dañuy wax juddu Pikine rek. mais juddu mi ngi Géejawaay. Mm-hmm. mi ngi Ginnaaw Raay mi ngi Kër Massar. mi ngi Malika. Mm-hmm. ndax xale yu bëri. Euh, ñi ngi dëkk Géejawaay léegi ñi kër Malick Malika ñi kër Massar bon c' vrai que Pikine lañu dëkkoon après ñu. ñu toxu waaw euh, donc boo dee xool ci département yu bëri juddu mi ngi ci enfin am nañ fa ay élèves. Mm-hmm. maintenant suñu yéene wax naa ko sànq mooy bu ñu sañoon juddu nekk ci région bu nekk ci Sénégal. Mm-hmm. ñu am fa siège. di mm. dimbali ay nit parce que xam nañu gox bu ne tay soxla nañ dimbal bobu non dëgg la maintenant nag euh, loolu soxla accompagnement. Mm-hmm. Euh, bu état du Sénégal accompagnement collectivité locale mm-hmm. accompagnement également nos ministères de tutelle. Mm-hmm. ñom aussi adressé nañ leen ay correspondance jusqu'à présent amaguñu ben retour. donc j'espère qu'à l'issue de ce plateau dinañ jot suñu message ba mun ñu contacter ñu jéem xol naka ne ndax liguey bi. Euh, seul le président ne peut pas tout faire. il faut mu am ay ministres il am ay députés il mu am ay directeurs ainsi de suite mm-hmm. suñu ministère de tutelle ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci gox yi goxaat yi di leen dimbali ci yenn mbir yi ci yenn mm-hmm. jafe-jafe yi kon yaakaar naa kenn gënul yelloo tey. Mm-hmm. juddu que ñu toog ak ñoom waxtaan ba ñoom ñu mën a dugal seen loxo si projet bi nga xam ne nii moom lañ nekk depuis ay at. wax nga ko sànq nee nga jaan xaw ma man nag sama wolof taxu ko <laughs> sori noonu. mais bu bëggee mat sax man day nëbbatu. mi ngi noonu donc boobu ba léegi boo gisee. ni ngi doon génn nag dinañ doon def ay interview parfois via les réseaux sociaux. Mm. léeg dem am ay télé ñu invité ñu am ñu dem échanger ñoom. Mm. mais euh, dafa am fu ñu nekkoon am fu ñu jëm. Mm-hmm. donc loolu moo tax tey nag ñu ne il faut ñu génn. Mm-hmm. Euh, gën a xamal euh, askan wi ci li ñuy yëngu gën a xamal nos responsables yi nga xam ñu ngi ci dëkk bi ci li ñuy yëngu. Mm. pour que ku nekk aussi mën ci ñëw jàpp. mbir mi ku ci jàpp sa bopp nga jàppale. dëgg la ku ci def sa bopp nga defal. Mhm. ndax xale boo xam ne nii dimbali wuñ ko. Mhm. ñu bàyyi ko ci mbedd mi mu nekk délinquant mhm. ëllëg. bu nekkee agresseur wala muy def naka su dul noonu suñu responsabilité sera engagée responsabilité ku nekk dafa am na ci am na ci am na ci part de responsabilité donc bu ñu jël lépp rek ne sàcc na agressé na def na lii mais nañu xool source bi nan la nañu xool kooku est-ce que encadré woon nañ ko est ci yoon est-ce que dimbali nañ pour mu jàng donc loolu tant que amul donc moo tax boo dee xool violence bi bëri léegi ci ci ci ci ci ci te en plus que gis nga bàcc foofu dama la fay ànd ak yow parce que yenn saa euh, li leen jege yéen a koy mën a xam absolument parce que xam nga état mënul xam lépp mënul xam ne ci biir kër yi mënul xam ne ci biir koñ mais yéen ñi nga xamante ne ngeen nekk ay jeunes dëkk Pikine xam la nga xamante ne loolu ngeen fay dund ngeen fexe def mbooloo léegi nag yéen comme ni ngeen defee ni mbooloo defe naa ku ngeen tàllal war na leen man a wuy si pour loolu nga xam ne yéen yéen a ngi koy xeex pour mbir mi gën a saafaraw eh, dafay am solo ci côté boobu. dëgg la dëgg la waaw non moom xam nga ñun ñoo nekk eh, ak askan wi mooy enquête sociale yi ñuy def. Mm-hmm. léeg-léeg dañuy dem def enquête Omar du ma bàyyi ma fen parce que mm-hmm. moom mii ci wàllu boppam def na stage euh, à Diouldou pendant deux ans. Mm-hmm. stage je tenais vraiment à le préciser di ko remercier. de façon bénévole daanul fayee ko dara nag. ndax dafa ne li ngeen def ci man war naa mën sama xam-xam ma ñëw boole ko ci. Euh, xool nu may dimbalee xale yi mm-hmm. mais daan nañu arrivé ñu dem defi enquête mm-hmm. def lu mat fukki famille mm-hmm. bu ñu ñibbisiwaan ñu tegal ñu añ du ñu añ ndax dañuy jël gis difficulté yi famille di dund gis jafe-jafe yi ñuy dund donc ñun ça veut dire que nous sommes en euh, en permanence en contact avec ces familles avec ces enfants là ba mën a xam ñi jafe-jafe yi ñuy yi ñuy dund. te loolu xëy na suñu ministre bi mun na ko bañ a xam. Mm-hmm. ndax mun nañ bañ a nekk wàcc dans ci base bi. Mm-hmm. président de la république peut-être mun na ko bañ a xam. Mm-hmm. c'est vrai que c'est l'homme le plus renseigné au Sénégal mais am na ay détails yoo xam ne nii. ñu gën a association yi ak ONG yi nekk ci gox-goxaat yi. ñu mën a dimbali pour ñu mën a jéema a xool ñooñu nan lañ leen di génnee. ci pauvreté bi mën leen teg ci yoon ba nga xam ne nii dinañ am ci lu ñu jàpp. donc euh, côté boobu je pense que. Euh, ñu ngi dimbali état bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di wax it ñu jàppale ñu pour ñu gën a am kàttan gën a mën a am doole pour gën leen mën a dimbali. Mm-hmm. jërëjëf macha allah euh, Omar euh, bi nga xamante ne kii nga ak juddu juddu jàppale nañ la ba fan lañ yem ak yow. juddu fan bañ commencé ak yow ba fan lañ yem ak yow. bul xool bàcc wax ma man <laughs> man <laughs> waaw. est na fu mu yem ak parce que mu def ak yaakaar naa du amul amul limite. amul limite bi mu la commencé fayal. depuis CM2 ba fan ba gunge. ba fi nga xamante ne tey yegg si ba am sama licence. waaw ba nga am licence. waaw parce que dañu mës a gëmloo sunu bopp xam nga ñun banlieusards nag lu mu métti métti dañuy am bopp. da ngeen am fugg. waaw <laughs> bokk suñu devise juddu. Mhm. mooy apprendre comprendre. Mhm. entreprendre. même si on mal on entreprendre quelque chose. Mhm.

Euh, tey ji xam nga juddu dafa bëri ci ñoo xam ne nee nga jàppale na lañ ba ci yow mii nga xamante ne tey yaa nekk directeur bi euh, ndax ñooñu mu jàppale ñëpp tey xam nga ñëpp euh, peut-être ñëpp du ñu yem amandoo koom-koom mais am na ci ñoo xam ne yàlla du leen wàcc ndax ñoo ñu ngi geesu judd ñi fa jaar ñëpp te yàlla wàccu leen ndax ñu ngi koy ñu ngi geesu judd. waaw c'est vrai que question boobu c'est une question pose mm. très souvent. <laughs>

Euh, et que récemment am ben benn kuréel bu ñu taxawal. ñoom mhm. anciens élèves yi. Mhm. mooy l'association des anciens élèves de judo, mhm. et que ñoom décidé nañ que dinañ di ko ñu ngi doon ñu commencé nañ sax di cotiser chaque mois. pour xool ñoom aussi naka la ñuy ñëwee ñu ci construction bâtiment bi. vrai que jusqu'à jusqu'à jusqu' notre jour. jusqu' nos jours du moins amu ci kenn koo xam ne nag pare na benn xale. Euh, vrai que am na ci ñoo xam ne dimbali na leen ñu am euh, ñu am situation bi.

nga mën a jël benn xale mhm. eh, ne ah xale bi kat man maa ko féetewoo war a mën a def weer bu jot am loo xamante ne moom la yëkkati teg ko ci seen loxo pour yéen tamit mu oyofal leen li nga xam ne mooy li nga xam ne moom ngeen di def parce que dama koy wax souvent Sénégal yenn saa yi nag du ñëpp parce que olof Njaay neen bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër ñooñu taxu ñuy wax mais dafa am ci ñoo xamante ne du ñu xam seen démb te démb moo tax ñu naan tey kon tey bu fekkee dafa am foo xam ne danga nga fa jaar ñu jàppale la te nga xam ne jafe-jafe ci nga nekkoon ba ñu jàppale la mais da nga war a waat jàppale waat xale yooyu nga xam ne dañu am jafe-jafe man loolu laa moo tax ma laaj ko laaj boobu bu fekkee am na ci ñoo xamante ne ñi ngi ci jaar ci dem am yàlla teral leen te defuñu ci li nga xam ne loolu lañ ci war a def loolu moom du loo xamante ne lu lu lu lu baax la mais bu fekkente tamit am na ñoo xam ne ñu ngi koy def am na ñoo xam ne amuñu mais am nañu seen xam-xam am na ñoo xam ne seen doole parce que joxe du xaalis kese am na ñoo xam ne dooleel seen doole la ñu yore mhm. am na ñoo xam ne seen xam-xam la ñu yore am na ñoo xamante ne koppar la ñu yore mhm. nag dafa am ñoo xam ne nag ñu yor koppar gi nag moom ñooñu ñoo dul nangoo laal koppar gi ñooñu nag la ñu wax nañu génnee koppar gi ñëw dugal ko ci li nga xamante ne mooy ONG bi nga xam ne daf leen a jàppale ba tax na lu baree bari yeguñu ko ñu dellu si waat ci ñooñu jàppale waat xale yi nga xamante ne dañ koy soxla yooyu tamit day am solo ci li nga xam ne moom mooy euh, mbir mi xam naa ne bàcc di ñu cërale ci wax des na tuuti nag mais xam naa peut-être ci biir laaj yenn saa yi di nga seq ak nit laaj te am foo xam ne doo fa egg ak moom su fekkee am na loo xam ne bëgg nga ko egg askan wi te laajuma la ko lan lay doon waaw je pense que <laughs> def nañ tour bi ah ndax expliqué nañ un peu juddu nu mu soxee ko mhm. ah, di santaat di gërëmaat te ñaanal ki nga xam ne nii moom moo tax juddu mhm. ñu créé ko au Sénégal muy Jano da Silva. Mm-hmm. di ñaan yalla su sedd ci kawam. Euh, ndax nit la woon koo xam ne ni ku fonkoon éducation la. nit la woon koo xam ne ni moom aussi il il était de famille défavorisée. Mm-hmm. yàlla def mu teel a tukki demoon mm-hmm. bitim réew. donc bu demee ba moom mu am cette jeune de créer cette, euh, cette ONG pour aider les enfants donc tey dañ koy rendre vraiment un vibrant hommage mhm. keroog rendre nañ ko un hommage vraiment à titre posthume bi ñuy def suñu pose première pierre bi mhm. ndax lii lépp la mhm. euh, tey bu ñu demee ba yàlla kàttanal ñun ñu am xam-xam am fit am doole di dem bitim rew di outil ay partenaires di ñëw ba tay ñun ñu am luñ fit sanc di nar fi tabax un bâtiment c'est grâce à mom moo ñu fital moo ñu ba ñu dem tay di am ba ñu yegg si fi ñu je remercie également peut-être son, collègue de travail Jeannette mhm. Diatta et Maïmouna Diagne les mhm. anciens élèves du les parents d'élèves et la communauté pikinoise yi a xam des nii am juddu jëlul mais dañu dañu estimé mhm. ci li ñuy def dañuy et puis di lancer encore vraiment un appel tel, ça nous tient énormément à cœur au président de la République du Sénégal ndax moom mooy suñu Euh, bu fekkente ne ay nasaraan dañ nekk bitim réew di financé depuis quatre-vingt-neuf ba léegi muy diiru fanweeri at ak ñett daanaka. Mm-hmm. nar fee def ab gox boo xam ne ni ça va peut-être euh, avoisiner les cent million mm-hmm. euh, yoon la ñu mën a toog ak moom. Mm-hmm. présenter ko le projet. wax ko li nga xam ne nii moom la ñuy def Pikine ak suñuy perspective ak li nga xam ne peut-être moom la ñuy xaar pour que au moins état du Sénégal accompagne ñu. Mm-hmm. ak également nos autorités locales yi nga xam ne ni ñu ngi dëkk Pikine. Mm-hmm. di woo également euh, toutes les bonnes volontés yoo xam ne ni vraiment bëgg nañ dimbali euh, juddu. Mm-hmm. ñu ñëw jàppale te xam ne que li ñuy def. Euh, comme nu ma ko waxee sànq rek dañ koy def pour suñu askan. dañ koy def pour xale yi dañ koy def pour avenir wu xale yi. ndax am na benn boroom xam-xam bu daan wax ni que.

pour que au moins fi ñu bëgg a yóbbu ko fa ci at yi di ñëw incha allah. ku nekk daal am foo jàpp. effectivement parce que mbir mi comme ni ñu koy waxee rek jàppal ma jàpp la. Mm. <laughs> ku nekk daal na am foo xamante foofu lay jàpp bu ko defee day daal di am solo euh, Omar defe naa ne euh, am na loo ciy bëgg a dolli bala ngay euh, tàggatoo lan ngay dolli waat li nga xam ne mooy seen ONG boo am solo bi nga xam ne yéen koy def booba ak léegi. wax nga ñu ci fi ngeen ci jaar vraiment ñun tam ñu am mbégte ci loolu bu baax a baax di ci félicité. waa juddu bu baax ndax taxawaayu mel ni mm. eh, dafay rassurer li nga xamante ne moom mooy askan bi comme nu ma koy waxee rek nguur mënul lépp mënul lépp parce que bu mënoon lépp rek kon àdduna dafay yomb ndax suñ borom sax moom mën na lépp te defaluñu lépp dafa def ñii am ñii amuñu mm. ñii njool ñii gàtt suñu borom def na moom ay façon kon du doomu aadama moo mën a matal lépp mm. kon ku ci nekk boo xamee sa wareef ba nga def ko dañ leen rek jaajëf ñoom xam nañ li nga xam ne moo leen war ay ndaw lañu mais tamit ñu ngi am loo xam ne ñu ngi koy def beneen bi ma di ko wax ne que ni am nañu yaakaar bu baax a baax que ni euh, président Macky Sall bu tegee euh, bëtam ci li nga xamante ne moom mooy euh, émission bi wala ñu eggee ko ko yaakaar nañ dina ci def jéego yu am solo ndax nee naa la ndaw ñi dafa bokk ci li nga xamante ne daf ko ñor ndax nag dafa juddoo ci réew mi màggee ci réew mi jàngee ci réew mi xam lépp lu nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi président buy wax da ngay xam ne kii sénégalais pur la parce que xam na li nga xamante ne moom mooy suñu ay réalité du parce que dañ fi toog rek mu nekk président de la république ñu koy waxal lu ko neex déedéet la nga xam ne moom la ñu xam ci moom ak yéeneem ci li nga xam ne moom mooy askan bi defe naa loolu moom euh, xam nañ ko ci moom te defe naa ne daal dinañ am nañ ci yaakaar bu baax a baax lan nga ciy dolli balaa ngay tàggatoo. waaw li may dolli ci loolu mooy comme ni ko Bathie waxee. Mhm. appel bi ñuy lancé yàlla na yegg ci nopp yi a dal waaw ñi nga xam te ne ñooñu war a apporter seen aide mm-hmm. ku ci mel dañ koy commencé ci sunu sunu maire de la commune mm-hmm. euh, Cheikh Diop mm-hmm. di ko wax maire de la ville pour que tamit ñoom ñëpp ñu dugg ci seen loxo ak bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi biir Pikine am ñoo xam ne ñu na leen am na lu ñu suturloo ak suturloo seen njaboot ñooñu tam ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax di leen wax ne juddu daal seen i jarbaat dafa nekk ak seen i doom seen i sët yoo xamante ne tey buñ leen bàyyi woon ci mbedd bi dina metti lool lool tey juddu dajale ñooñu bëggal am benn xar bo ba nga xamante ne tey dañ koy jox banlieue bi benn xar bo boo xamante doomi banlieue bi war na am mhm. ba tey doomi banlieue bi yaakaar nañ ci ci at yi di ñëw ci vingt ans yi di ñëw ci cinquante ans yi di ñëw ñu ne kat ki président bi ci banlieue bi la génnee mhm. te ñaan nañ yàlla mu nekk ci élève juddu loolu lu yomb yàlla la ñu ngi koy ñaan bu weesoo loolu tamit di kontaanee ci invitation bi di remercier tamit jotaay bi ak plateau bi franchement rafet na lool di wax ne bàcc xëy na dama disponible rek moo tax mu woo ma mais am na samay junni junni morom yoo xam ne ñu ngi woon juddu tey ku ci nekk mu waroon la mën a woo te ku fi wu ñëwoon tamit tey dina wax loo xamante ne mooy gën a daw yaram wala moo gën a dëggu sax ci li wax man mii kon loolu dama ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di la sant tamit tataawa merci Bathie ma bàyyi la kàddu gu mujj nga daal di tàggatoo. waaw maa ngi lay sant bu baax. jërëjëf maman man maman Awa laa am. waaw habitude <laughs> di la di la wax bu ñuy waxtaan. dëgg la c'est vrai que yow aussi. sa mhm. euh, se voit que jox nga gëdd éducation. et yaa ngi def émission yu am solo. Mhm. vraiment euh, muy tàkkusaan di développer ay thèmes yoo xam ne ay thèmes d'actualité la. Mhm. yoo xam ne nii day jëmale askan wi kanam. Euh, c'est vrai que buñ la wowe il y a une semaine juste sans maximum dañ la wo rek nga ne ah non loolu moom ñiy def loolu Pikine mhm. ñu dem leen recevoir donc ci nga ñu joxé rendez-vous donc ma mhm. lay remercier bu baax a baax a baax ndax mbir mom bu joté ku ci nekk rek mën nga ci japp ak fa nga nekk euh, presse bi relayer ko mhm. ñi nga xam ñom ñoo am doole ñëw ci doole de seen doole ñi am xam-xam ñëw def ci seen xam-xam donc ñu lay remercier bu baax a baax ci invitation bi di remercier aussi euh, Omar parce que

spectateur ak téléspectatrice yi nga xam ne nii ñoom ñooy seetaan Takusaan di wax ni que mooy émission bu baax bi ndax vraiment liñ fiy wax am na solo mhm. te it tamit amal na solo askan wi mhm. jërëjëf soxna Awa euh, baax comme ni ma koy waxee rek saa su ne leen RTS télévision nationale askan wi ñoom ñoo ko moom suñu amee xam ne dañ ko war a pour askan wi dañ fi war a toog te nee naa leen bu ñu fi toogee amul benn obligation boo xamante ne moom lañ leen di tegal pour ñu toog fu lu dul ñu indi loo xam ne dafay jariñ askan bi ak wax loo xamante ne dafay jariñ askan bi loolu moom moo nekk télévision nationale noonu la ñu ko suñu directeur général santé noonu la ko suñu ay directeurs yi nga xamante ne ñoom la dénk mbir mi noonu lañu ko sante moo tax noonu lañ koy doxalee képp ku nga xamante ne rek am nga programme boo xamante ne askan wi moom moo tax mu jóg ñu war koo eggee nag ta mu doon nag uh, loo xamante ne lu ñuy mën a jariñoo dañ dañu woowee rek da ngeen di daal di ñëw toog wax ko ñoom ndeysaan danoo baax man xam nga man uh, man maay uh, yaayu xale yi ñoom ñëpp samay doom lañ ñu nekk samay rek mais tamit macha allah fii ñu toog dañu fay teg pour ñu liggéey mais ñu liggéeyal askan wi loolu la daal di sant moo tax loolu la ñuy def kon bàcc maa ngi lay gërëm bu baax di la sargal gërëm tamit Omar bu ah, baax gërëm waa régie gërëm caméraman yi yëpp gërëm téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu jox leen dig daje ba ëllëg incha allah Thank you.